vraiment un grand bravo quoi. Avec son agette, merci son agette quand même. mais il faut que population y les les en même temps Initiez-vous. Mais au-delà de ruissellement yi moo koy gagné muy taw nit ñi dañuy sotti mbalit donc bu ndox mi démé bay jeex voilà ce que ça donne donc euh, ndox yi ñu sotti mbalit yi ñu sotti won ci ndox mi yépp da koy yóbbu certes mais yow dina la débarrasser ce kër mais à un moment donné il faut aussi mu ñëw ci këru jàmbur donc eau de ruissellement yi moo koy indi léegi su ndox mi démé bàyyi ko fi mu nekk toujours un problème euh, parce que fii c'est au cœur du quartier ak la route principale donc après ben autre du ko avec emprunter ak euh, les tous les risques de maladie yi am loolu le problème loolu n'est que le problème quoi mais bon a baax na il faut conscientiser le maximum waxtaan notre population yi aussi ñu jàppale leen ci ay poubelles yoo xam ne day nekk ci quartier yi je pense que waa SONAGED ñu ngi qui liggéey avec les communes mais il faut vraiment que quartier yi bopp koñ bu nekk am ay poubelles au moins

nga nous ko chaque jour ñi koy collecté ils vont trouver des sacs des poubelles emballées collecte bi dina gën cadre de vie bi changer petit à petit Inch'Allah, on y arrivera c'est sûr et certain Nous gën ñuy sànni mbalit parce que le problème bi de koy débarrasser ce cœur, mais xam nga ni ci yeneen mais on y arrive Wow. Là, vous ñoom Adam Fall autres vraiment di remercier les femmes de UCG ak wa passé fi gis nga len ni ñu ngi nii ci mbalit mi ci tibb ñoom jëwriñ vraiment adam Fall mi nga am barki demb la joggé France et pourtant mu ngi ni ku nekk da ngay dugg ci biir waaw montré ni li ñun ñëpp la concerné quoi ñun ñëpp la concerné donc le quartier gis nga fu jaar ba paré rek le climat nan lay mel voilà C'est comme ça qu'on va progresser pour tout le boulevard 7. Le grand Ibrahim Ba, qui m'a initié les C'est lui l'initiateur, quoi. M'a initié lui. Donc, félicitations, gars. Yori, ah, toutes nos félicitations. Vraiment. mu Qui France le jógee qui de Mbow Ndiaye te teewul mu ngi ci mbalit voilà nii la Pastef moom nañ ko jàppee nii rek ak coow li lu mu bëri bëri bëri tant que ñu ngi ñuy gis ci terrain bi rek loolu loolu loolu mun mooy suñu sac quoi na quartier yëpp set suñu paree ñu xalal fii benn plan de reboisement parce que boo xoolee fii yëpp garab amu fi fii yëpp garab amu fi on a beaucoup de dëkk bi dañ ko war a defaraat mais un plan de reboisement boo xam ni daal ça permettra fii yëpp gis nga boulevard bi ni mu toll buñ ko saxaloon ay garab dina wàññi température koñ bi déjà donc li c'est du boulot donc Pasteur chantier on va éviter autant que faire les polémiques politiciennes nous sommes nekk le terrain Actuellement, chaque week-end nous sommes qui terrain voilà merci beaucoup merci Nous, sommes sommes le lañ donc nous, nga bàyyi ñu rek gars yëpp dañ cey ñew depuis ce matin ñu ngi ci depuis ce matin ñu ngi ci voilà donc le ta là gis ngeen ko les hein, gens les gars en hein, sont fexe nañ ba dindi ko lepp lepp lepp vraiment bravo grand bravo ni la rek chaque week-end sur le terrain chaque week-end rek sur le terrain période élection comme sans période élection ñun xaar ñu ay élection li mom c'est une c'est sunu ADN la bokk te lii kese donc li buñ ko bàyyi jamais au plus grand jamais bu Pastef baye li li rek lañ ñu xàmmeewee mooy suñu marque de fabrique du du ay teesante wala ay waxanté lu bon wala dara waaw li rek lañ ñu xamee lii rek chaque week-end ku nekk def ci lo meun ñu am sen xaalis duggal ñu am sen doole ñew ñu def ko communion avec la population pour sensibiliser l'intérieur derrière sur l'utilité d'avoir un cadre de vie sain parce que ce qui est après il jënd yenn faire donc cadre de vie c'est normal et naturel loolu moom ci constitution bi la mais c'est aux populations de sauvegarder d'abord leur cadre de vie Et d'abord nous ñëw derrière donc merci Sonager, merci à UCG aussi vraiment